fan nga jàngee musique mu ne ca Paris la France ñu ne ko lan mooy sa premier album mu ne Madou Sa ñaareel bi li ma doon ñu ne ko ndax aju sa ma ngi waajaan ngir génne beneen album mu ne janvier 2021 dina am beneen album boo xam ne dinaa ko génne te su ko génnee dina toj dëkk bi yéen a gi ñu laaj ko na ko aju sa ndax am nga leneen loo xam ne yaa nga ci yëngu lu may musique mu ne am na association boo xam ne li ko tax a jokk mooy dimbale ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaawa moom aju sa yéen gi di réew mi quotidien tas ko xabaar yi laaj ko na lan mooy sa diggante ak sa waajur di Ousa Diallo mu xam le ne Ousa sama baay la sama carrière bi lu rëy la ci def sama conseil la bis bu yàlla sàkk ma ngi sama wet ñu ne ko aju sa ndax lu jëm ci wàllum coronavirus bi andil na leen ay jafe-jafe yéen ñi nga xam ne yéen ay artistes yi mu ne bu baax a baax ma bàyyi mbiru aju sa wax ci yéen a kaay gii de Les Échos nee na ñi nga xam ne ñooy député yi ca pencum ndaw réew ma niki démb ci assemblée nationale ñoom na bëgguñu benn yoon chinois yi di jënd gerte gi ci réew mi di ko yóbbu bitim réew ndax ñenn si ñoom jàpp nañ ne loolee baaxul ci réewum Sénégal nee na suñu mënee moytu chinois yi ba ñu jël gerte gi di ko yóbbu ca bitim réew nañu ko moytu ndax baaxul ci réew mi ministre Moussa Baldé nee na bu ñu demee ba nga xam ne aw jiw nar naa ñàkk fi nga xam ne mooy dana danañu wax chinois yi ñu bàyyi njënd meek njaay mi yéen kaay gi di Libération professeur Moussa Baldé nee na fii ak ñetti at lu toll ci cent mille emplois mbay mi dina ko créer yéen kaay gi di Vox Populi nee na baykat yi nga xam ne ñoo nekk Chine Saloum kenn mënut a tax ñu jaay seen gerte lu toll ci deux cent cinquante kilo bi ndax ñoom nee nañu kilo gerte deux cent cinquante cinquante francs mënuñu koo dégg te gis chinois yi di jëndee trois cent cinquante maanaam Kaolack ñoom seen gerte nee nañu chinois yi la ñu koy jaay ndax chinois yi ñoo ëpp leen njëkk yéen a kaay gi ñu fekk fa Déthié Fall député réew mi daat na xëy wax ne bal de yéen seen gis-gis ak seen vision dañ ko war a jële jam ñaajo génne ko réew mi yéen a kaay gi da la ko di cee nee na bi nga xam ne moo dox diggante Idrissa Seck ak Macky Sall Déthié Fall jël na suuf xëpp ko sa cere ji ndax nee na vision Macky Sall jam ñaajo la yam comme na nga xam ne moom la ko Idriss Idrissa Seck doon waxee laas yéen a kaay nee na Déthié yàq na lëngoo bi dox diggante Idrissa Seck ak Macky Sall yéen a kaay gii de Les Échos xëy na ci xeex bu metti bi nga xam ne moo amoon démb ci assemblée nationale diggante député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly ak Alioune Badara Diouf ñoom ñaar dañoo jàppante ci óolu assemblée nationale doon xeex ba maara détaillé gendarme yi ñoo ñëw doon leen tàqale Alioune Badara Diouf na ko yow Cheikh Abdou Bara Dolly ab truand bu rëy nga ab truand bu ngand ba kàddoom di daanu la ko Cheikh Abdou Bara Dolly di daggal saagaw ndey yéen a kaay libération xëy na ci ANSD ak enquête bi nga xam ne def na ko nee na coronavirus bi tax na ñu baree bari ñàkk seen liggéey rawatina ñi doon yëngatu ci lu jëm ci wàllum restauration hébergement commerce fabrication transport yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy jox kàddu ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum communication ñooñu nag nee nañu communication gouvernementale bi Macky Sall ma ngi wut weneen yoon waaye nag bëri na ay rëq yoo xam ne am na ci te Macky Sall moo ko war a jëlal boppam yéen a kaay gi de la Tribune nee na galgal ubbul làmb doomu Abdoulaye Wade di Karim Meïssa Wade tëdd nekk sakataar fa la nekk di ñaax gaay yi di leen di jaaji naan leen waajal leen tere bi yéen a kaay gi de la sa xëy nee na Aminata Tall mooy coaché jamono ji Idrissa Seck ci conseil économique social environnemental ñoom ñaar nag dañoo yàgg te Aminata Tall kenn bëgg ko ci APR moo tax bi Idi ñëwee ànd ak Macky Sall Aminata Tall am na ku mu lëngool ndax kero ba ñuy samp Idrissa Seck Aminata Tall ma nga foon te jël na kaddu te miinal bu baax a baax conseil économique social environnemental yéen a kaay gi di réew mi quotidien génn ñu réew mi yóbbu réewum Burkina Faso nee na Christian Kaboré tabbu nañ ko téeméer boo jël am na sa juróom fukk ak juróom-ñaara yéen kaay gi di estat xëy ci derbi bu mag bi nga xam ne mooy am ca Angleterre diggante Chelsea ak Tottenham ca Italie Naples bu Kalidou Koulibaly tey ji dana ñu dalal Roma journal bi nee na waa Naples dañuy joué ngir Diego Maradona yéen kaay gi di sunu làmb mu ñu xamalaan ñu Modou Lo niki démb doon na janoo ak taskatu xabaar yi waaye daat nay wax ne Ama Baldé munu koo déstabiliser jamono ji bëre rek la bëgg pare na sax ngir bëre huis clos